dëgg la am na solo Mariama thème bi ñu adopté démb am na solo torop torop sax moo tax it euh, dañoo jël euh, décision ni que dañuy continuer ci même perspective yi continuer waxtaanee thème boobu noonu ñu nuyu ko nga xamante ne mooy Momo ah. <laughs> Euh, maa ngi day fay Mariama di nuyu Ramatoulaye di leen wax ne tey ni ngeen def baax na ba ñu ma lii. parce que jigéen dëgg day chon jigéen day nooy waaye jigéen day fashion bëgg boppam euh, tarkal la ni nga def euh, waaw waaw lii moom bañu ma ko ah. waaye tamit sa waay <laughs> moom it moom it la mu jëm ci lunette xaw ma moom kan moo génn fii nii laa waay waay waay yaa ngi mel ni <laughs> tàngal <laughs> xoolal nee ko tey nii laa koy xoolee nii mhm. Mm-hmm. <laughs> Ah, annoncé nañ ko léegi ah, euh, ñu ne leen ko yàlla suñu borom bi tey gis nañu démb ñu dugg ci ci thème bi gën a yaakaar Ramatoulaye. wax ci sëy diggante jëkkër ak jabar amoo ndaxte buñu nee sëy Sénégal dañuy jàpp ne rek euh, euh, jigéen ñi. Hmm? mu ngi noonu Mariama parce que euh, sénégalais hmm. on a tendance suñu waxee waxi sëy rek on fait toujours référence à la femme hmm. pour ñoom jigéen ki mooy def lépp daal moo war sëy mooy def lépp man am na loo xamante ne dama ko naw ci ci ci ci ci góor ñoo xamante ne peut-être ils n'ont pas grandi au Sénégal euh, ci yeneen kii yi lañ màgg c'est vrai ah c'est yeneen culture tu vois c'est vrai que le milieu détermine la personne mais ñoom dañoo adopté loo xamante ne c'est très intéressant da ngay gis góor boo xamante ne bu fekkee jabaram ci waañ di ko toogal c'est vrai que am na Sénégal mais bëriwul c'est pas fréquent te loolu dafa neex ci ci ci dundal sëy la bokk imagine nga nekk à la cuisine di togg sa jëkkër jóge fee sa ginnaaw rek naan indil ma dëbbal nokkos xam nga indil genre xoolal ma ñi nekk si ginnaaw di ree xam naa ñoom duñ def yooyu tu vois loolu noonu safa doon dafa doon lu intéressant gis nga parfois euh, benn acte bu ndaw ngay def fekk xamoo ni yaa ngi marqué ay point te te te xamoo ko tu vois loolu noonu dafa doon euh, ay acte yoo xamante ne dafay marqué jigéen c'est intéressant et puis góor ñi nañ ci nañ ci dee di appuyer di ko def de temps en temps parce que dafa doon loo xamante ne dafay dundal dundal sëy ci sëy la bokk Euh, fi may fi may doore rek mooy gis nga góor góor dafay du góor dafay galant góor dafay xam valeur ak àqu jigéen góor dafay mën a toppatoo jigéen euh, te ki nga xam ne laataa nga siy jot façon neexal bu ne ak wax ju neex ju ne def nga ko pour am ko rek waaye boo ko amee bu ko yemale foofu parce que nag gis nga sëy ñaar la te de Sénégal dañuy faral di dégg ne euh, ku jigéen ki dañ naan ko danga nga jaamu ji déedéet sëy la donc ku ci nekk da nga am loo xam ne moom nga warlul sa morom. Mm-hmm. mais nag euh, euh, sa jabar yaakaar naa euh, war ngeen am benn complicité war ngeen am benn déggoo ak ba xam ne yéen du ngeen am problème donc góor war nga mën a tey sa jabar nga fóotal ko war nga mën a tey sa jabar nga jàppale ko ci cuisine bi mm-hmm. war nga tey sa jabar am doom mu nekk ci cuisine bi nga teel ko xale yi mais non am na ñoo xam ne dañu dañu rëy loolu mais ki nga xas ba xam ne xam na sa lépp nga xam léppam yaakaar naa foofu amatul dara lu fa war a mun a mun a nëbbu donc liy neexal say yomb na des fois nga gis lu baax ñëw jëndal ko sa jabar aussi sa jabar bul ko di manquer de trop dee ko jege mu nekk sa complice nga def ko comme yaay mu def la comme baay nga def ko comme rakk ji nga bokkal ndey baay mu def la mag loolu mooy neexal sëy mais du da ngay ñëw rek euh, yow ngay xaar yow sa jabar pour yow moom mu sëy sëy ñaar la parce que tey ku ci nekk danga ñaan yàlla tey ki nga nekkal ngeen am njaboot gu barkeel te ku ci nekk danga bëgg selon ni ngeen di dundee yéen i seen i doom yaroo noonu donc loolu nag bu ngeen ko bëggee yéen da ngeen di am benn complicité bu bu bu bu baax ba nga xam ne kenn du xëj seen diggante mais dama dàq góor bu nga xam ne daf ci bëri dañuy nekk gaynde kër muusu mbedd mi waa mbedd mi di la gërëm te sa jabar sax yàkkamtiwulaa gis ndax coono yaa ngi koy teg mm-hmm. góor googu très sincèrement du góor gi ñu taamu ci néegu sëy ndax tey boo amee sa jabar euh, moom danga dafa war a yàkkamti yow nga wàcc mu gis la mm-hmm. sa jabar dafa war a yàkkamti chaque instant muy wax ak yow ngeen sottante xalaat parce que loolu mooy dundal sëy mais daf ci bëri sama classe ki nga xam ne tey bu ñu leen xasee ba jébbal jigéen mm-hmm. jàpp nañ ni lépp am nañ ci droit maanaam boo leen di may ndox sax am na noo xam ne boo leen ko mayul war nañ la mun a wax wax ju ñaaw te aussi dañu seetlu ci biir sëy bi dangay xool souffrance yi ci jigéen ñi dund te du yoon ki nga xam ne ndey ak baay dañ ko dundal ba mu mel na mu war a mel nga gis ko nag daw ci safaak marwa te sa fukki moroom wala ñaar fukki moroom doon ci daw yàlla teg ko sa loxo bul dóor bul saaga bul xas bul wax lu ñaaw da nga ko war a nabb nabbee da nga ko war a teral ba ku ko gis xam ne kii teral nañ ko kii ku ko gis xam ne kii góor gu baax a ko yor noonu la ñuy yore jigéen noonu la ñuy seeg jigéen mais pas ay yuuxu xas ak wax mais moo doguma la euh, est-ce que aussi boo gisee yéen góor sénégalais yi ngeen am un certain comportement envers vos femmes est-ce que du noo réalité sénégalaise euh, réalité société bi ak réalité sénégalaise yi moo waral loolu parce que parfois ñu gis jigéen góor ci waañ rek am fu ñu la dëkkee comprendre nga am ñu la qualifié parfois nga gis góor buy togg rek ñu qualifié la feneen ñu gis góor buy fóot ñu am fuñ luñ la teg est-ce que du looloo waral seen comportement. Eh, dinaa la wax leen gis nga néegu sëy ku ci nekk ak problème ya ngay dund euh, jamono yenent bi am na benn saxaaba boo xam ne moo jabaram dañ doon am problème léegi mu ne day dem kalaama ji ko yenent bi mais bi mu ñëwee moom lañ ko doon def la raw la ko la ko raw la fa fekk dafa mujj dëppaat. pour te diir que néegu sëy amul complexe nee naa la ki xam sa lépp nga xam léppam dama laa cax foofu amatul complexe li nit ñiy wax bu mu la yitteel parce que nag ma xamal la lenn ah, fii ku fiy dégg monsieur <laughs> wala ngay dégg leneen boo ñëwee sa jabar bébé la lay woowe te di nga ko ne naam ak at yoo am donc ki naan la bébé nga naan naam moom waru amul complexe gis nga sa jabar tànk yaa ngi dox ci li mu bëgg day dox ci li nga bëgg lu am solo la nee na sànq dama dégg démb suñu benn mag fii ci kër gi dafa wax lu am solo. Mhm. dana ci góor am na comportement ba am sa jabar. Mhm. t'as même pas besoin di ko dicter. nan ak war a sëy ci biir mhm. parce que tout repose sur l'homme. bu mhm. ñu demee bañ la jëkkër ne borom kër moom mooy kilifa kër bi. am na nu doxalin bu ko doxalee bu ko doxalee rek yaakaar naa ne soxna si dina xam kat man sama borom kër lii la bëgg. te mhm. nii laa war a doxee ak moom mu nekk loo xamante ne lu am solo la woon. dëgg les gens ce qu'ils boo amee jabar ngeen nekk ngeen dëkk ba ngeen am ay doom. donc yow say comportement doom ëllëg dépend yi ni ngay comporté wa ak say jab ak sa jabar parce que tey jii boo dëkkee ak sa jabar nga koy fitnaal di ko dóor xam nga ñun sénégalais dañoo am benn habitude foofu lañ uteeg tubaab bi tubaab tey bu doon xuloo ak jabaram fekk doomam a ngi de euh, à côté rek lan la koy njëkk a wax mooy vas yi dans ta chambre ñun nag sénégalais amuñu comportement boobu da ngay gis ne parfois nga fekkee euh, yaay ak papa buy xuloo di mbéjante seen kanamu doom di sàndante ay kàddu yu ñaaw ci seeni kanamu doom donc doom boobu noonu buy gis loolu noonu day tax ba à un moment donné il sera il sera rancunier tu parce que doom mënul gis ñuy gis def euh, yaayam yenn yi tu loolu sax parfois il arrive doom bi dem ba amal benn haine papa ji tu comprends wala mu dem ba amal benn en yaay ji parce que yaay ji nu muy tontoo papa ji neexu ko wala papa ji nu muy wax ak yaay ji neexu ko loolu mën na dem ba doom boobu noonu bu màggee gis loolu day naan peut-être li mooy dëgg li mu am donc sama yaay lii la dund kon man aussi bu ma amee bu bu xasee kooku mooy am jabar di ko toroxal di dóor parce que ci milieu bu agressif la màgg mais contrairement ak doom joo xamante ne dafa màgg ci milieu boo xam ne papa s'il te plaît defaral ma lii doom jooju fu mu jaar day duub fu mu jaar mënul toroxal jigéen la plupart nag exception mën na am mais la plupart xale du xale boobu noonu bu màggee mënul toroxal jigéen mënul wax jigéen li ko nakari parce que fu mu màgg la lu mu daan gis la li ko papam woon la mais bu fekkee contraire bi la gis aussi noonu lay màggee xam nga le milieu détermine l'individu loolu noonu c'est très intéressant nañ ci bàyyi xel loolu c'est pas c'est pas c'est ngay ngay yónni sa jabar ne ko s'il te plaît defaral ma lii s'il te defaral ma lee mais góor ñi am nañ benn autorité boo xam ne ba bu ñu amee jabar rek yaakaar nañ ne suñ la yónnee force la lépp lu ñuy def ci yow force la c'est une obligation tu femme yónni naa la dangaa war a dem par force ah donc bañ nañ ko ba bu ñuy wax ak yow du dëgg jugal defaral ma lii sans pour autant teg ci s'il te man dama ko daan wax suñu kër ah, man j'aime bien suñ may yónni loo munti mag mag mag rek nga euh, boo ma waxee dara teg ci benn s'il te plaît j'aime bien je sais pas pourquoi. xaw ma lu tax c'est loolu nature la ci man damay yónni benn xale suñu kër xale boo xam ni mat naa ko sax yaay wax la lii ba pare teg ci s'il te ñëw naa ba habitude la ci man et j'aime bien tu loolu day tax ba nit ki boo ko daan yónni. Euh, bu bu bu bëggoon bañ sax day day nangu am na benn xale bu nekk suñu kar da ngay jàkkaarloog moom <laughs> mu lay xool nga koy xool nga ne ko ay sëtu indil ma ndox ma naan xam nga lan la lay tontu nekkuma fi. nekkuma fi <laughs> mais xoolal man su ma ko tontu say ma ko yónnee day dem. Mm-hmm. parce que peut-être moo boobu ma ciy teg moo tax ak reetaan bi ak foo bi mm-hmm. kon nañuy xam ne ñuy jëflanteeg nit ñi c'est très intéressant. Mariama mm-hmm. gis nga jabar. kenn du ko moom waaye dañ koy mën jigéen ji nga xam ne bàyyi woon na fukk ngir sa jëmm ji war ngaa am ngoru téye ko na nga xam ne fukk yooyu buñ ko gisee xam ne mu ngi ci loxo yu baax te fii ku fi amul rakk bu jigéen am nga mag bu jigéen te ku ci nekk danga bëgg sa jigéen ñu toppatoo ko teral ko taaral ko ndax loolu mooy sa sag donc ki nga nekkal suturaal ko te ki nga xam ne dañ koo muur guddi mu bàyyi santu baayam di wuyoo sa sant amoo ak payam ndax tey sa jabar na mu mel noonu la sa doom di mel sa jabar bu ñëwee baax nga fexe ba ak iñaan parce que des fois góor mooy tax jigéen soxor des fois sa jig jëkkër di la dundu loo métit boo xam ne da ngay dem ba mu def la rankit mu def la feebar donc nañu dawal yërmande si jigéen ñi nañu xam ne gis nga wallaay man li ma gën a bañ mooy góor guy teg lu metti jigéen parce que tey fii da ngay dégg ñu ne Euh, fii ku ñu ne baax nga bu ñu ne jigéen baax na ndey a tax ma ne leen kon benn jigéen bonul ndax ku ci nekk ndey ngay doon waaye nag góor de fois mu bon loo jigéen donc ñu fexee di bay suñu waar gis nga toggal sa jabar dara ne ko ci billaay parce que tey <laughs> Sénégal li gën a minime la ñuy réyal li gën a rëy ñu minimiser ko yow danga naan duma toggal sama jabar duma ko teel xale yi te bu guddi jotee nga feccal ko waaw li may tàggatoo tey moom euh, mbégte la contentement. Mhm. parce que tey ku xool nii ma toogee ci palaato bi nga xam ne am na fu ma jaar euh, muy dibiteri Zidou nekk fee ca Grand Yoff lépp luy wàllum lakk pittax Euh, xarak nag ak lépp lay lakk donc mun ngeen ko fekk foofu ca Grand Yoff Zidou sama jaam la naar la may lawbe waaye nag euh, dafa transhumé nekk lawbe moo tax mu saf loxo xam naa dinaa leen fa yóbbu mais aussi maa ngi remercier ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy teewlu ci Equivox TV doon rafetlu bu baax a baax ànd bi ñu ànd ak yéen di leen jox rendez nag suba incha allah ci beneen thème sur Equivox TV. rejoindre ñu ci ay ca Babacar. xoolal ma Babacar nu muy dikkee ci plateau bi. non tey la instant yi instant yi xoolal mi ngi mel ni célibataire mbete célibataire. borom borom ñaari galon yi ah. <laughs> mi ngi noonu. asalaamaaleykum Babacar borom ñaari galon yi. ma salaam wa rahmatulah rahmatulah. salaam wa rahmatulah. Mariama Mariama. Hmm. ak ñu seetaan tamit. Mhm. nooy nuyoo suñu mbokk internet yi tey. nga dam leen di ziar rek leen ñaanal jàmm comme ni mu koy defee rek di ko saaku si ñoom ah. loo xam ne ñu ngi leen di bëgg encore une fois parce que amuñu seen fay ah, parce que nit moom booy def dara ay nit di ko seetaan même bu fekkante ne da ngay génn sax di personnes topp la seetaan rek ak doomu aadama ni ko yàlla fonke defe naa loolu war nga ko sant yàlla kon nag bu la ay nit di seetaan ñun defe naa amuloo seen fay doo def lu dul ñaanal leen jàmm rek sax datu daara yi nii taw feex xam nga lépp luy jàmmi àddina rek yàlla defal ko bépp doomu aadama def xéewal def mucc ah, def ko si àddina bi mais def ko tamit suñu senegal gi barke yonent bi na solo loolu mbégte loo xamante ne am solo la. Mhm. Eh, gis nañ ko fi ñu waxtaanee ko tey nag ñëwaat rek ba tey desaat ci même boobu noonu. Mhm. mais gën ko yaatal ah, yow mi nga xamante ne comme ni ñu koy faral di ko tooñee borom ñaari. gën a am xam-xam rek eh, ngir ñu waxtaanee loolu Ramatoulaye. dëgg la eh, dañuy ne diggante eh, ñaar ñoo xamante ne o dencante di kër jabar mhm. ñu jàpp ni Sénégal seen tradition mooy que ni jabar moom mooy sëy alors que jàpp nañ ni sëy ñaar def muy jëkkër ji mu si ko borom kër tey jii ñu bëgg a xam ne ki nga xamante ne kooku borom kër bi. nan la war a séyalee parce que sànq da nga waaw am na solo parce que olof dafa am lu muy faral di lépp nee na xare moo ko mm-hmm. loolu mooy dëgg defe naa ne ah ñun ñi nga xam ne yàlla dogal nañu nekk ci sëy. Mm-hmm. am na luñ ci xam parce que ñu ngi ñu ngi ci biir ñu ngi koy pratiquer mm-hmm. actuellement. même ñu ah, yéen ñi ko defagul tamit ñu ngi ñaan yàlla ngeen day yegg ci. te tamit am na lu ngeen ci xam parce que yéen a ngi dund ci biir kër. am ay wayjur mhm. am fekki boo xam ne am ngeen ko ci biir kër gi gis dafay xew ak mhm. li am am ci biti comme au moins am na lu ngeen ci am mhm. waaye nag ki nga xam ne moom daa nekk ci biir nag moom mën na ci ëpp xam-xam ki ci nekkagul yaa ngi dégg sëy nag buñ ne ñaar a koy def wala soxnaa ko war a def pour man sëy kay buñ ko takkee yéen ñaar ñëpp a ko war a def muy góor muy jigéen ah. parce que sëy du kenn bu ko kenn defee nu muy doxe mënta sotti parce que bis bi nga xamee ne yow jul soxna sa daal dem gis benn soxna ah mu intéressé la ci wàllum jikko ci wàllum yar buñ ko yar ci wàllu ay parents maanaam fu mu jógee parce que am na éducation de base bu la leer na kii man na nekk soxna parce que góor gu ne damay wax na ki lay ki nga xam ne moom muy jur sa ay doom ëllëg day ko tànn waaw ah, loolu dafa jar tax tànn parce que man mën naa doye di mel ne neen nangam sangam mais sama soxna naa fexe mu nekk soxna boo am jikko ju baax yaa de parce que na soow ma moo tax ba xale bay nàmp ci ñi nàmpal ndax léegi nàmpal moom dañ ko tegg na le waaw ci ñu bare baree bare am na ñoo xam nag duñ ko bàyyi ba ilaay mujj parce que dafa am lu bëri lu muy def si doomu aadama mais bon buñ nee sëy ñaar a ko war a def ba kenn ko war a def man dama naan non sëy ñaar bu ko kenn defee rek sëy bu sëy sëy amatu fa bu fekkee bu ko bu fekkente ne jigéen ji moom moo tax ñu war a sëy mu war war a naan d'accord ah, gen ngeen baal ma mm-hmm. mais bon ñaar ñi ñoo ko war a def mm-hmm. parce que ay woy dencante ngeen mm-hmm. ñaar nag bu ñuy dencante mag ñi ñoo doon wax diw mooy doomu diw mooy denc doomu diw maanaam góor ki lañuy ñuy adressé denc moom mooy denc doomu diw denc nag li nga denc nag yow kese yaa xam fi nga ko denc comme yow kese yaa cay yaa ci war a dem bu dem ci jotee comme yaa ko denc nag la nga denc nag war ngaa fexe denc ba ñoom mu mucc ay ba dara du ko yàq du réer lu am benn jafe-jafe yaa ngi dégg kon ça veut ko loolu boo ko déggee wala nga jàngat ko mooy kon ku góor ki kon defe naa ne lu war jigéen ji rek li war góor gi sax mu ëpp ci sama ci ci ci ci li war a nekk parce que soxna dañ la ko muural jox la ko ak nit ñi mu foore ak ay noppam mu ñëw sa kër. nga ñëw croiser les bras ne moom mu war a seen war a def li man d'accord. góor waaw parce que dama gis nga baal ma rek góor sëy moom maanaam ci biir kër gi dem duggali sa soxna marché lan si nekk dem jëndal ko yére ñaawal ko andil ko mu sol lu si nekk ah? loolu kay ñëpp ko non ku ko góor jigéen ko góor ñi am immunité wu di def loolu loolu mooy sëy jigéen day am luy tax tout le temps muy xam ne man kër góor bi ma am am na si man yërmande noot na ma mhm. mooy yooyu nga di ko ko defal raxas bool sax amul muskila war na góor war na ko mën a defal soxnaam. dëgg la parce que loolu dafa am lu muy dundal ci seen diggante. parce que mbëggeel comme yow ko war di suuxat. mais ko bàyyee kenn rek du ko àttan boo ko bàyyee ku góor ki dafa dis disaay boo xam ne mënu ko gérer moom parce que day daan bu yàgg. da koy day tis ci loxoom ba rëcc ko boo ko bàyyee ku jigéen kazaalika naka noonu kon yéen ñaar ñëpp ku ci ne dee ci bay sa waar. voilà Babacar euh, li nga li nga wax ni c'est très intéressant hein, juste pour appuyer li nga wax. Mm. en fait dama benn gis na benn publication. là on disait que le Sénégalais est un est est, est un bon amant. mais un très un très mauvais mari et boo xoolee dëgg la am boo xoolee dëgg démb ñu ngi ci doon waxtaan ak euh, suñu mag jooju. Mm-hmm. Euh, sénégalais ngay gis nga am nga nekk ak moom d'abord ci ci ci ci ci labat je peux dire copain ki yooyu ngeen nekk instant boobu euh, compliment yuy jóge ci moom di ñëw ci yow du manqué ah. À chaque fois, tu tu t'habilles bien, il te dit non, tu es bien habillée là, tu es toute belle. nga sol lu rafet nga defar mu ne la nga leetu lu rafet mu ne rafet na mais xaaral ba mu takk la indi la këram. def la pot de fleur mën ngaa xëy sañse suba 10 heures ba midi. ah nga génn rafet na sax doo ko am alors ko jigéen dafa bëgg ko ko complimenter man a j'aime bien ko ko complimenter gis nga jigéen tant yaa ngi koy complimenter. suba elle te dit elle se dit ouais euh, donc euh, demain je dois faire mieux tu vois demain je dois faire parce que tey def naa lii sama jëkkër nee na ma rafet na donc sa ça la donne envie suba tamit buy defaru mu defar encore lu gën a nice mais yow nga solo ba mu rafet nga jël sa deux heures sans defaru yéen sa jëkkër xool la si kaw ba suuf mënu la sax mënula sax nee rafet na non loolu ça fait mal ça fait très mal bàyyi leen si xel. yow sa soxna imperfection yu mu mënti am rek yow di ko mën a jàppale ba mu ba mu conscience ci loolu après yéen ensemble di ngeen a xool ak naa ne wax bi ba tey benn bi la rek ah, parce que wax na ko léegi si côté bu lay nopp maanaam mm-hmm. ni muy dikkee nangam sangam ak bu demee ba takk la commencé bàyyi ko. waaw damay wax na rek kon xëy na lu wax mu dese nekk ci moment. Ah. ndax nit ki defe naa ne jamono bi nga koy labat di ko bëgg soxna ah di si sonn di ci daj ay coono li ngay sonn di ci daj ay coono defe naa boo ci jotee nga ko war a mën a gën a fonk. di ko labat ba ngay sujet finalement. Mhm. Euh, Amath ba mu ko takkee ca kër ga bëggatul rek lu génn ci sëy ndax moom euh, euh, waaw parce que loolu souvent li koy indi tamit bokk na si. yéen da ngeen ci am benn parent. parce que du ngeen jàngat góor. Mm. parce que maanaam boo toll ci sa ndaw nag nekk xale bu jigéen. Mm-hmm. mel ni nga war a mel comme tey yéen ñii exemple. Mm-hmm. maanaam góor yi ñëw ci yéen day bëri de. mais jàppal ne bu fukki góor ñëwee jàppal ne benn borom kër ci ne. yi nag da ngeen di am problème boobu pour diffuser pour jëpp pour pour ràññee boobu mhm. ràññeet xam ba pare ràññee dafa am solo xam nga leen ñoom ñëpp ku nekk ñëw ne dama laa nopp mais jéem a la ràññee moom ki ci aw ak yow parce que langage su dëgg waxu vérité ku ko dégg war ko xam mais des fois nag réew mi li ko li indi problème yooyu di am booy léegi ñëpp di ko wax parce que matérialiste bi dafa ëpp dafa bari parce que nit ki da ngeen di bu ngeen di ànd yow ku jigéen da ngay a ànd ak góor gu nga xam ne leer na la kii bëgg na te boo defee taxaw seetlu dëgg dëgg dëgg nattante am di nga xam kii lan fu mu toll ci yow kooku nag bu fekkante ne liñ ñi tënk nga ko laaj seetlu ko ba xam ko ba ràññee ko ba ngeen jàppante man am naa yàqin ne bu ngeen jàppante incha allahu rabbi saa yu ngeen xëyee même bu la takkee daf lay gën a téye mais Babacar Lo tamit foo ñu waxaat si de parce que à bëgg lu baax du matérialiste de gis nga ñun jigéen on mérite ku ñu toppatoo jigéen jabar joo ko amee da koy toppatoo di ko toppatoo mooy genre de temps en temps nga koy defaral ay surprise ay déjeuner au lit ah di ko yóbbu ay resto loolu du matérialiste de bëgg lu du matérialiste pour man damaa wax dama dama commencé in yow nga ñekki ñëw diis man ci ngoro laa la wax ngoro gu matérialiste laa lay wax ngoro d'accord que boroom kër dañ koy reñ ki nar a yor soxna war a dund ak moom ba àddinay tukki ba bakkan di daanu yàlla na yéex kooku buy ñëw réalité lay ñëwee dëgg lay dikkee yaa ngi dégg kooku laa lay wax nga ràññee ko waxuma la jigéen man maa man maa d'accord ak yow ci ne la jigéen dañ ko war a defal lépp lu lu lu koy bégal bëgg lu baax bu nekkee sa soxna waaye dama ne balaa muy nekk sa soxna fi waa ji di ñëwee maanaam fukki góor ñëw ku ne ramatulaay dama laa nopp wala mariama ma la jéem la ràññee ci ñoom ñooñu kan moo ciy borom kër borom kër mooy kiy dund ak yow à buy neex ngeen di dund buy metti muy dund fu mu la fekk ci lu neex maanaam fu mu la fekk sax ci jafe-jafe jéem génne la ci soutenir la à vie kooku laa lay wax nga ràññee ko mais waxuma la ne jigéen waruñu ko defal ay surprise pourquoi bu jigéen boo ko defal surprise loo koy defal non matérialiste bi ma lay wax rahmatulah xaw ban matérialiste laa lay wax matérialiste su doxaan laa lay wax dëgg la comme ça tey man maa ngi lay doxaan borom kër la maanaam man man man man maa ngi lay doxaan mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. yor naa xaalis am naa ay kër am naa lépp mm-hmm. Habib mais mu ngi lay bëgg moom tamit ah moom mais moom amagul sa liggéey bu dëgër demeegul noonu mais xam nga ci sa travail ba am ne boo wéetee ki sa ak sa nga gënaay xam ne Habib mu la gën a bëgg ka man man xëy na dafa am lu ma lu may centre ci yow rek lu ma soo ma ko xañee nag mënu ma koo jot ma jéem la takk su ma la takkee quelque temps après bu ñu dundee dund ba day yàqu mais Habib moom jamono boobu moom bëgg na la te yàlla tax moom noo mel bëgg na la boo tafoon sax mu sang la ba nga set solo la ay yére taxaw fa nekk ak yow Habib moom nag bu nekk ak yow dama leen matériel boobu nga doon xaar day ñëw parce que am na loo xam ne da ko fay xaar loo fa xaar du la fa fekk. yàkkamti yàqule. waaw ku yàkkamti yàqule foofu laa lay waxee. Mm-hmm. maanaam waxuma jigéen mérito na lépp luy teraanga ci àddina jigéen dañ ko ko war di defal. loolu mooy li war a am moom la góor ñëpp war a defar oyof ci seen kanam soxna yi di waxtaan ak ñoom di diisoo ak ñoom mm-hmm. yaa ngi dégg. waaw waxtaan bi mm-hmm. waaw. jeexalee foofu. mi ngi noonu euh, kii Mariama comme ni nga ko waxee c'est c'est très intéressant Babacar aussi lu mu fi wax am na solo en tout cas mi ngi noonu jigéen dañ koy toppatoo wax nga ko fi dañ koy toppatoo et puis sëy ñaar la loolu il faut ñu ba donte sëyu ma mais. quand même on a voilà on a ñaar ñaar ñaar ñaar a koy def et puis ñaar ñëpp buñ ci jàppee rek dina dëgër mais lépp loo xamante ne kenn ci jàpp keneen ci bàyyi rek day yoolom du baax du te du dem fenn. Mhm. Euh, waaw tàggatoo bi daal mooy comme li ma waxoon maanaam lépp lu ñuy dund lu ne na doon dëgg. Mhm. loolu moo ñuy noppal suñ bëggee noppal yi ñu fi wax yëpp di ko traité des li koy indi mooy ñàkk dëggu maanaam nekk ci dara te gëmoo ko di naxe di def zambla di def ay faux ay di dugg ay génn yooyu amul sens su amee rek jafe-jafe day daal di juddu xam nga sànq léegi maa ngi lay wax ci côté matériel sëg yooyu yaa ngi fi dégg coow fan yi coowal miis yi moo ko indi parce la ñuy dégg ñun ci coow la man xaw ma lu xewaa mais li may dégg di ko for ci coow yi ça veut dire que ay problème mu weccet ay problème mu am am ay problème mu xaalis est-ce que noonu la est-ce que midi noonu la war a doxe pourquoi waroo mën a toog yow ci sa côté parents yi ñoom ñi la yar jàngal la def ci yow lépp ah nga toog ba gis ku baax mu ñëw mën la fas soxna nga dem say fas fa fonde famille am njaboot bu baax nekk ci sa jàmm dund à l'aise nga dund ak ki nga bëgg parce que jigéen encore une fois day dund gi ko bëgg góor dina dund ak jigéen ji ko bëgg dañu moytu côté am am bi am am boo àndee ki nga war a àndal te yàlla rek tax yàlla di seede nga def ko te yàlla tax wallaay la si mu yàgg mu yéex dina ñëw fekk fa fekk dina la fekk parce que loo fa xaar du loolu laay conseil góor ñi di ko conseil jigéen ñi kuy ànd àndal ak ki nga bëgg te yàlla tax kuy ànd tamit àndal ak ku ñu yar borom jikko ju baax nit sax même bu fekkee daa mel ni man baaba ko sax yaree di sax yow boo baaxee bu yàggee di ko jubbanti parce ñaar bu ñu ànd dañuy mot leen loolu mooy sëy ci sama gis-gis di la remercier ah euh, euh, euh, Mariama di remercier Rabatulaay di remercier ñi seetaan di remercier tamit les caméramans ah muy Habib ak Mansour di ñaan jàmm Sénégal yàlla na ko fi yàlla def def ko si àddina bépp barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. amiin. macha allah amoon